dal leen ak jàmm soxna Aida Diallo dem na ca yoon déposé na plainte contre X li jaaxal soxna si mooy waxtaanam yeeg vidéom yi ne fang ci l'internet bi ne xus ci réseaux sociaux yi ba ku ne di ci yëy di ci yàbb ñépp di ci waxtaan ci grand place yeeg marché ndéem du moom moo ko génnee ana kan la war a doon lingeeru cantaakoon bi kontaanul de kontaanul ci taalibe yi nga xamante ne dañuy sennal yenn ci ay waxtaanam ak ay vidéom ci réseaux sociaux yi ba tax mu déposé ab plainte ngir mën a xam ana kan la wala ñan la su dee paaka bi lay rendi sa waaye koy daas jox la soxnab sëriñ Béthio Thioune ba woon soxna ayda moom mi ngi wër ana kan moo ko doon daasal yile paaka cantaakoon yaa ngi niitante ci seen biir waaw waaw soxna ayda daanaka séq na ab waxtaan wu yaatu ak waa division spéciale de la cybercriminalité bi nga xam ne ab pàcc la ci dikk ngir ñu defal ko ab lanket pour mën a xam ana kan ci taalibe yi moom mooy sennal ay waxtaanam ak ay vidéom ci réseau sociaux yi moom soxna Aida jàpp na ne Willy Pandé boobu ñu koy Willy Pandé moo tax ba ju bari ci murit yi daal di koy mere ndax amatuñu woon xalaat bu rafet ci moom ana kan wala ñan ñooy def lii ndax ñi sës rëkk ci moom la wala sax dañ leen a rax lu jara laaj la bokk na ci li métti soxna si mooy jéebaane ku ñu jéebaane ay waxtaan yu mu amoon séq ko ak ay taalibe ci lu ngir waxtaan ak ñoom ci waajtaayu gàmmu Medina Salaam ji daanaka sa ëllëg sa ci la yeewu fekk ne waxtaan bi mi ngi ci biti ba ñëpp di ci ŋawti ŋawte ànd ak loolu waxtaanu biir néeg bi mu séqoon ak xalif général des mourides mun Muntaxa Mbàkke lam ca wax ba mu dellusee waxtaanu privé la woon waaye daanaka mbir mi senn na ba ñu bëri jot ci am na sax ñu dem ba ci xalif bi di ko tegal ojo yooyu ngir xamal ko ne soxna Aida li mu nekk du dëgg du yoon moom jàpp na ne loolu sax bokk na ci li tax xalif bi meroon lool te du yoon ñenn ñi demoon sax bay wax ne moom soxna Aida Diallo daf doon génte ay xale di takk ay sëy te wedd na loolu yépp ne dara amu ci moom jëwriñ universel lu mu bëgg a dakkal mooy waxtaan gu mu séq ak ay taalibeem ci ngoon bu xëyee ci suba gi fekk ko ñu dugal ko ci réseau sociaux yi ndax ay jege ñaaleem la wala déet wala ku leen rax la di ko def lu ci mënti am soxna si déposé na ab plaintam te bëgg naa xam kan la dinañ leen ko toppal buñ ci amee ay leeral ngir mën leen wax li xew ci mbir mi